noo ngi leen di masawu coono ñoo ngi leen di baalu àq noo ngi leen di ndokkeel ci fa tabarakallahu weer wu tedd bi ñu nekk ñuy ñaan borom bi ci mbaxam ak kàttanam ak mën-mënam mu nangul nu te fulal nu yàlla nu ko defal ci barke yonentam bu tedd bi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa ngeen baal ma ma nuyu samay bokk aayul mu di ñi jóge Tuuba ci suñu kër maam Sëriñ Tuuba fa tabaarakallaahu dafa am lu yàlla dogal ci suñu diggante ak ñoom moo di léeg-léeg nga gis ku la bëgga waar wax la ni la yàlla sax dafa wax ci alquran ni innamal muminuuna ixwa ma ni buñ ci yemee dara du sotti ndax bokk goo gis bokkoo mooy tax mu sax te yonent bi dafa waxoon ni al uxuwa al ixa moo ko gën a dëgër mu ni kon tànn na al ixa ci diggante jullit yi la fraternité et la fraternisation il a choisi la fraternité, la fraternisation. Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa euh, ma bañ ngeen jàpp rekk ci ni suñu diggante fii la yem ci jata ci daje bi dañu koy def pour ci kanamu nit ñi ëpp na loolu ndax sëñ Cheikh Tidiane Sy daf ma yónni ci sunu wayjur bu baax sëriñ Abdou Lahad yal na yàlla yokk leeru bàmmeelam ma dem Touba yendoog moom bi mu ma dalalee ba noppi moom Serigne Abdoul Ahad mu ñëw fekkaat ma fi ñu ma dalal ma jóg ci lal bi toog ci tappi bi ci suuf pour jox ko mu toog ci lal bi moom nanguwul toog ci lal bi lu dul dafa yootu njegenaay teg ci tappi bi soonu ci ñu waxtaane lu bare ma xëy di ñibbisi mu yëkkati mbubbu boppam may ma ko yëkkati kaamilu alquran may ma wax ma ni ma xam naa ni mbubb mi doo ko sol waaye denc ko souvenir ñuy dem ba sunu way juru Cheikh Abdul Qadir ñëw ndakaaru dal sama kër bàjjan may sëñ Cheikh yónni ma ni ma demal nga dalalal ma ko jàmm ci sa kër bàjjan may ma dem waxtaan ak moom sama bàjjan may a ngi toog ndax dama ko fa fekkul ñu ni ma dafa dem ñaanali benn taalibeem ci këram ma toog di waxtaan ak sama bàjjen may ba Cheikh Abdul Qadir ñëw fekk fa ñu waxtaan mu yëkkati kaamilu alquran may ma ko àdduna di dox ba ma dem màggalu poroxaan pour représenter fa sëñ Cheikh Tidiane si ba nu toogee ba tàkkusaan sëñ Moustapha Bachir yal yàlla yokk leeru bàmmeelam mu wax ma ni ma sa baay Mourtada dafay fanaan si waaye yéen ñaar bu ëllëgee gi inauguré mausolée bu Maam Jaara mausolée ba maag Cheikh Mourtada ñoo ko inauguré pour woon leen ni daje bi gën na profond li ngeen gis waaw yàlla àtte kii fi nekk tey di alxaliifa Cheikh Mountakha war na mat léegi quarante sëñ Moustapha Bachir dafa yónnee woolu ma ni naa ko fekk këram gi ci Colobane ma fekk ko këram gi ci kolobaan moom sëñ Moustapha Bachir mu dugg ci biir chambre à coucher woo fa sëñ Muntaqa ñun ñett ñu nekk ci biir chambre ak coucher sëñ Moustapha Bachir wax ma ni ma tàllalal sa loxo ma tàllal sama loxo mu ni sëñ Muntaqa teg ci sa loxo sëñ Muntaqa teg ci loxo mu ni ma dama bëgg yéen ñaar ngeen fasante kóllëre ndax fi nga féete sëñ Cheikh Tidiane si la ma sëñ Muntaqa féete boobaak léegi umpante wuñu dara bi yàlla dogalee Cheikh Sidi Muxtaar wuy ji boroomam ma dem Tuuba pour jaale ji cheikh muntaqa cheikh isxaqa mii toog la ma booleel moo ma dalal dans ses appartements privés lu ko jiitu sax sëñ Bachir Mbakke sunu bàyyi la di sunu nijaay lu tax alxaaji abdul xamid kan mi jur sunu wëy jur bu jigéen dafa waxoon ni li yàlla santaane pour jaamu ko yépp def naa ko waaye am na lu ma dese mooy dama bëgg dajale ay doomu nitu yàlla di saral seen xol ndax yàlla fay ma ci mu dem tuuba jël fa sëñ Bachir Mbacke sëñ Bachir Mbacke sëñ Cheikh Tidiane si nee ma moo gën a dégg arab ci àdduna mu ni ma ku mel ni moom ci xam-xam masuma ko gis sëñ Cheikh Tidiane si ngeeg ay livre am moom sëñ Bachir El Hadj Abdou dem Touba jël fa sëñ Bachir dem Tivaouane jël fa Alxaaji Abdoul Aziz dem jël fa Alxaaji Ibrahima Niass boole leen nag wax ni danaa jëf ci yéen loo xam ni sama ngërëmu borom laa ciy wut moo tax Cheikh Bachir Mbacké bu nu ko nee nijaay mu valable bu nu ko nee baay mu valable bu ma doon dem tuubaa tey du ma yëglu te bu ma demee dinaa am fu ma dal parce que dëkk ba yëpp maa ko moom sama maam ma fa tëdd ma fekk leen fi ñoom ñépp tabaarakallaahu eh, sañu maa njëkk nuyu kenn te nuyuwuma leen maa ngi koy nettali bërki dem yàggul ci benn waxtaan ma doon def ma ni rabi àll yépp dañu daje wax ni nañ seet ku gën a ñaaw ci ñun ñu rey ko ba nu seetee ñu ni golo golo gën a ñaaw ci ñun nañ ko rey mu ne may leen ma ma dem te dellu si tàggu ji samay bokk ba mu demee mbokk yi gunge ko ñëw xamatunu ki ñu désigné woon pour rey ko seet seet mënuñu ko xàmme mu jékki-jékki génn wax leen ni gënuma woon ñaaw ci seen biir dama nekkul woon ci sama biiri bokk waaw ku nekk ci sa yi bokk am taar loolu la yàlla dogal mu di daje boo xam ni alquran la lañu wax yàlla jaanam wàcc na ba mu waxee ni ma faratna fil kitaabi min shay nous n'avons rien négligé dans le Saint Coran loolu moo di bu ngeen amul solution parce que solutionné na problème yépp ci biir alquran bu jullit ji amul solution ci seen gàttañ yu la kon mën naa wax ni jaanam wàcc na fa tabaarakallaahu euh, mag ñi ñoo jox alquran cëram Cheikh El Hadj firi alquran mu mujj ca ndar dafa waxoon ni bëgg naa xisib bu nekk ak sañseem ba ba kaamil biy jeex te noonu la ko doxale mu ni sañse bi pour participer joxe son bopp alquran cërëb euh, yàlla dogal ci ci ñoom li nu gëm ñoom mag ñi waaw alquran la gëm leeru yonent bi lañu ñu gëm te jamono bu nekk damay wax ni ñi bëgg dem dem aljanna ñoo tardeel nit ñi waaw waaye ñi bëgg jot seen boroom lu defaru ñoo ko defar parce gëm yàlla ak wóolu ko du benn yàlla ku ko wóolu boo tëddee nelaw bokkul nag mën nga ni gëm na yaa ca juróomi waxtu ya yaa ca yooni màkk ya yaa nga ca lu ne waaye boo wóoluwul boo tëddee doo nelaw mu mel ni alquran la ñu wax pare nale ko sëñ Babacar Sy mu di ndongo ci biir ndongo yi waaw sëñ Babacar Sy dafa doon juróomi jëmm ci benn jëmm ndax juróom yi ko seq bu ci nekk remplir na condition ba mu war remplir ci digganteem ak moom sëñ Babacar Sy citoyen la dund na citoyenneté parce que def na service militaire am yóbbu nañ ko soldat doon yàggu fa eh, ndax kersa kersa jàppoon tubaab yi comme jëloon nañu magam Sidi Ahmed si yóbbu ko bakkanam des fa ñu ni kon du nu tëye sëñ Babacar si lu yàgg ci biir caserne bi mais nañ ko jox bureau loolu taxoon mu nekkoon fonctionnaire donc remplir na condition citoyenneté doomu ndar la woon nangu na ko wax ni wa innani qad kuntu min ahli ndari wa maskani fiha lada rue André ah, nee doomu ndar pire la ndar la dëkk te ci dans le cœur de Saint-Louis la dëkk te mooy rue André Le Bon nee na fa laa juddoo remplir na citoyenneté parce que wote na wote na plusieurs fois waaw moom sëñ Babacar Sy en tant que Saint-Louisien en tant que citoyen waaye en tant que Saint-Louisien bi ko ñetteel moo di wàllu culture la mu ca sonne ak la ko ci yàlla jox euh, fa mu nekkoon ca ndar ba muy jàng ma wax leen kan la fa amoon comme xarit def ko bàyyi def ko xarit maam Masamba Mbàkke moom la fa sëñ Babacar Si amoon mu nekk baayam nekk wëllëreem di encouragé sëñ Babacar ci wàllu njàng xam-xam daan nañu def mushaara seen rencontre poétique yi ñu daan def parce que du ko ne poète la rek ñu gëm ko la poésie désigne l'expression du beau idéal par le langage mesuré Elle doit flatter l'oreille, toucher le cœur, frapper l'imagination et élever l'esprit. Sinon, c'est rien du tout. ñoom mushaara yooyu lañ daan defante ci seen biir toog wax ci wàllu poésie sëñ Cheikh Tidiane si mës naa ko dégg mu wax Senghor ni ko ñiy def poésie ni ko ku mel ni Serigne Touba ku mel ni Cheikh Al Hadj ku mel ni ma jaxate kala ni ko ñooñu ñooy def ay poème pour instruire mais ni ko yow yaak Césaire ak ba Frobenius poème yi ngeen di def c'est pour séduire waaw bokkul kiy def cha chair biy woy pour instruire ak chair biy woy euh, pour séduire bokk